waaye ma nekk sa jaam boo xam ne yow rek yaa moom dama séq ak kenn ma sax fii fi Tuuba fi liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danga la ma fi lépp luy gàllankoor ku xam ne bakkan gàllankoor la seytaane gàllankoor la ën nag bànneex ay gàllankoor lañ tax mu ñaan yàlla eh, mu dox diggante ma yooyu yëpp mi bàyyi ko daru salaam nag ku ne xam na ne mbooloo mi daleen leen bàyyi borom gaawaan maam Seex Anta fukki jëm ak juróom-ñaar la àndal bi muy ñëw Tuuba yee des ñëpp fal leen bàyyi fukki juróom-ñaar yooyee mooy tur yi may bëgg lim sëñ daam Abdourahman Lo ca la bokk sëriñ Mor ab sëloo calabok bokk sëriñ Modou Ajara Mbàkke sëriñ Mor Soxna Buso sëriñ Masamba Kandi Buso sëriñ Mayaasin Umbi Jang sëriñ Adama Sàll sëriñ Mad Laamin Njaay sëriñ Ibrahima Géey sëriñ Mamar Mbay Gol sëriñ Buubu Ja sëriñ Mamar Jalla Yaabe sëriñ Maxtaar Jang sëriñ Madu Ngoone Jang sëriñ Ngoone Ka sëriñ Ahmadou Géey Baabu ak sëriñ Omar Soose fukk ak juróom-ñaar ñi la Sëñ Tuubaa àndal bi muy sanc Tuubaa ci jumaada saaniya ama wasachin atum junni ak e, ñetti téeméer ak juróom benn ci gàddaay kon dafa ñëw kon ngir tarbiya bàkkan kon Tuubaa mënte nekk dëkk bi kelkeli ab àll la woon ab gott boo xam ne dara néew fi seeb xam ne woon toll nañ jamono yoo soo séenee guddi luy xooy dangay ngay jàpp ne da ngaa ay rabi àll rekk amul climat bu neex amul ñam bu neex amul ndox yit boole ci te joo jamono metti lool tërbi gi tar lool boole woon nañ ñeent man nga daawuñ lekk daawuñ naan daawuñ nelaw daawuñ liggéey yu mett yépp lañ daan def dañ daa bay di gor di rooti di sàkkan di sàkket di taxan te ngaa bu leen daa roote ji dañ ko yanu dañu dox su suñ doo liggéey ba ngoon ndax ñu noppalu su di liggéey ba noppi dañu daal di la tàmbali ku ne ne ci dara ñii di zikkar ñii di jàng xasaayid ñii di tudd yàlla ñii di jàng alxuraan ko ne ci dara ba ba guddi gi màggat ñu door a tëdd suñ nee gam-gam mu fekk leen fi leen jóg leen liggéey àdduna nelaw xëju fi jóg leen liggéey àdduna nelaw xëju fi moo de seblaat waxoon ne suñ xamee nelaw yu guddi gannaaw suñ tuba la bu dee ñam yu suñ masaan xëy kenn ku nekk benn ngëbu pepp la ñuy tibb jox la tape masot du doon suuna waaye saañu lay doon wala wala basi nga yëy soo yëyee ba noppi ñu xel li genn ku wéeru sat ci ndox jox la nga naan bala nga ko amaat waxtu waxtu di socc suba sa ba tu bi tubaa neexee la doo doon nga bu baraay bi tubaa neexee la doo doon nga baraay waaye nga pepp la daa doon bu njëkk te doyanteel liggéey liggéey métti yooyu yëpp moo tax ma ne kon daawuñ lekk daawuñ naan daawuñ nelaw daawuñ noppaloo loolu lépp kon tarbiya bakkan yi rek la ci jubloon soxna Faati Ja Mbàkke xam ne mooy taawu sëriñ bi ca la bokkoon ca tarbiya googee daana wax ne néegi sëriñ néeg sëriñ bi daanaka lu ne daana fa ne ay miskit ak ay lu ne waaye doo joxe lépp ngir ngir ngir ngir rek tarbiya bakkan yi loolu ca lañ sax euh, ba juróom-ñaari at yi nga xam nekk na ko Tuuba yépp ba ni fi bàyyi ko sañci Mbàkke Bari ci Jolof ngeen nag waajal tukkeem bu mag boobu yi nga xam ne tukkeem bu barkeel bi nga xam ne lu nu am tey looloon na ko may mu mel ni kon dëkk bu ko sañce kon daj fi loolu lépp dañ wax yàlla rek lal sañc gi defar rekk lal ko musal ñu seytaan rek ak i gàllankooram rekk lal ko loolu war na saa su nekk ñu di ci bàyyi sunu xel su xoolee nag li tax mu sanc ko buñ delloo ci ñaari tarjumaani ñaari xasida daan ñu ko fa leeral tarjumaani saadatil muridin ab diwaan la fi am daay xëyr mursalin dañ fekk ca tarjumaan ja muy laaral li tax mu sañ ca dëkk bi wax ne lii day mooy texeeg murid yi loolu tuuti téere bi ci tagg ngën ji yonent yi yàlla ko yàlla doy mucc gu bàyyi ko ci yàlla mi nga xam ne dana nekk eh, eh, ci ci ci ci ci moom la ñuy nekk di ngeen ngeen jaa tedd ñi koy liggéeyal ki ko def nag mooy Abdullahi jaamu yàlla bi nga xam ne day liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam damay muhammad ibnu muhammad ibnu muhammad ibnu habibillah yàlla ko yàlla sàmm eh, tey ëllëg te méngoo mbiram mu ne yàllaa ko dexal ci dëkk bi di Tuubaa xam yàlla na ko yàlla aar ci bépp gàllankoor ak lépp lu ñu sib ak lu ñu tàmbuut ci atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak benn euh, ci gaddaaw ki nga xam ne ki sanc dëkk bi dara tax mu sanc ko lu may jaamu yàlla tabaaraka wa taala ak liggéeyal bi yonent bi kon ñaari baat yooyu mooy tegtal ko li tax ko mooy jaamu yàlla kon ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaar yooyu bu ci nekk mu def ca loo xam ne danga mën a wax ne kawe na manuk doomu aadama ndax bu dee ci jaamu gi ca la dem bay wax ne mu def ci lu ci kenn defut bay wax ne ibadatuna faqad ibadati gayrina wa billahi min iblisa ma dhikri uduna sama jaam yàlla de féet na ko jaam yàlla ku dul man kon loolu rek doy na sëkk ci wax gi mu wax ne kenn jotu ko kon ci jaam yàlla bu dee liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi mu def ci loo xam ne itam kenn fekku ca farraxtuhu bi xidamin laa faaniya laha min alxidami laysat faaniya bégloo naa Moustapha sallallahu alayhi wa ci liggéey yu rëy yu ma ko def ne liggéey ba amutum ñaari mooy kenn dooleentiwu ko te njariñam du du jeex bu mukk amul fu mu yam su demee ci tarjumaan man la wut faw sëy ni ba tey leeral na fa li tax mu sanc ko nga xam ne jublu xasida gi mooy ñaan ak sant guy bijji incha allah ndollan ak ndimbal muy loo xam ne kii ko wax mi ngi ko waxee ci dëkkam bi nga xam ne mooy Tuubaa yàlla na ko yàlla aar ci lépp lu ñu sib ak lépp lu ñu ragal ca daraje ki nga xam ne dafa gàddaay ki wax wax ji dafa gàddaay jëm ci moom ngir dundal sunnaam li ihyaa i sunnati yi sallallahu alayhi wa sallam kon dundal sunna kon mu fekkee kon da mel man nga man kon ñetti yëf moo tax mu sanc ko jaamu yàlla liggéeyal yonent bi saa sam ak dundal sunnaam yàlla dëgg dëgg ak jaamoom liggéey yonent saa sallam tam ci di ko tagg ak di julli ci moom ak di ko gindil nit ñi deen teg ci aw yoon waaye dundal sunnaam nag te dafay jaadu ci jàmm bépp jàmm dëppoo ak sunna ci mboolem ay ay jëfam yëpp ndax yàlla du nangu jëpp jenn jëf ju dëppootu sunna euh, ndax su ma dafa tànn ab yonentam waajal ko ba mel na mu bëgg mu tekk ci sunu kanam ne kii laa leen royloo sunna nag ñaari xaaj la am na sunnatun fardiya ak sunnatun gayru fardiya sunnatun fardiya mooy jépp bépp sunna wax na am na aslu ci alxuraanul karim lool boobu sunna fardiya la mooy def ko waru gar la ci bépp julit def ga tiyaabaa nga ca ñàkk ga def bakkaar nga ca bu dee sunnatun gayru fardiya mooy sunna boo xam ne amul aslu ci alxuraan boobu nag moom jëf gi jëfe ko eh, tiyaaba la waaye ñàkk a jëfe amul bàkkaar yàlla na sunu ma mbool dimbale wala defal tawfiq xiir na ci njub te saxal na ci te def nu dëgg dëgg taalibe Sëñ Tuubaa te Sëñ Tuubaa nangu na sunu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa